te nañu bàyyi xel sunu bopp waaw xam naa mbokkuma ndeysaan ñu ngi seet fu ne di ko jaar pour nuñ ko bloqué mais xamuñu ne man mën naa ko yóbbaale Sonko man mën naa ko yóbbaale jeex na waaw tas parteek yii yëpp ñun ñoo ca jiitu woon tasuñu woon toog fii ni dañoo tas Moustarchidine hmm? ba góor gu am fayda ga góor gi mam ma jaw ngeen bal ma baat bi mu wax ka waxoon ni tas na Moustarchidine mënu ko tas sa sëyu ndey moo gën a yomb waaw waaw góor gi maam ma jow mag mu amoon fayda la waalo waalo la nag waaw parce que waalo waalo yi moom dañu dëgër fit lool waaw ah. xam naa ci dara <laughs> xam naa na am na ñu may xool di ree waaw waaye noonu la dafay am loo xam ne fayda rek a koy mottali waaw ah. li may wax tooñu maa tey baalu maa rek mooy tax borom baale ko waaw bu ko defee kon nag suba dinañ yeggale kuur bi ci diggante alam tara ak araayit li ci nekk yëpp ci pédagogie ak sagesse yi mu àndal ak li yàlla di attirer attention nit ñi la ànd mu mel ni nag ñu bëggoon ñëw rek barkeelu ay baat rek parce que waxtaan yi du jeex te nit ñi dañuy sonn li ma doon wax ci suba rek bi ñu defee accueil bi ma ne am na ñoo xam ne seen gàmmu jeex na waaw bu ñu sañoon sax fi mu ne jël seen oto dem ñibbi waaw ndax dafa am loo xam ne ku mu doyul leneen dootu la doy ma defee kon nag ñu bàyyi xel ñu ñuy neexal di leen wut lu ñu leen di kii moo tax ñu toog ba biig ci guddi ñu ñu téléphoné ma vingt trois heures naan ma waaw euh, le premier ministre yónnee na fi ñaari nag ak ñaari gëléem ñun lu ñuy doyee ñaari nag ak ñaari gëléem dama leen di laaj rek mbooloo mu tollu ni ñaari nag ak ñaari gëléem lu ñu yónnee feneen duñ ko wax ah li ñu waxoon yëpp yëpp dara defuñu ko kon nag ngeen jàpp loolu xam ni ci xeex ak ñun lañu jëm mais ñun it pare nañu waaw waaw bu ko defee kon nag bala ñuy yegg foofu dinaa wax ak sama maam ba ca Touba parce que moom rek laa fi am comme allié waaw. moom rek laa fi am comme allié tellement sincère tellement ouvert moo tax lu may wax ak moom mën naa ko wax mais à part foofu Covid 19 waxuma ci dara waaw waaw Covid 19 jeex na bu yàgg waay du dëgg ah waay. bu defee kon nag y a trop de comédie y yàlla xam na ko waaw. ñu bàyyi xel sunu bopp rekk wàllu candidature bi dinañ ci waxtaan suba ma wax leen li ma gëm ak lu tax ma def choix waaw bu ko defee nag toog day daal di jeex ñépp takku liir yi sax nañ leen wutal couche kenn ku nekk ñu wax la naka ngay dompe ah, wolof moo wax ni eh, domp sax ci sot la bokk waaw waaw lu waxin la waaw bu ko defee kon nekk bu ngeen seetloo depuis premier jour ba bi ñuy yegsi presque Serigne Cheikh Tidiane ñaari yoon lañ ko fi wane ñaari yoon waa këram dara ku ne tudd nañ la fel yeeg teeñ yeeg ñépp waaw ni Serigne bokkul waa këram bokkuñu comme noonu la nag jeex na ay ca waaw am na koo xam ni boo xamul lu mu doon it waaw dina la wax boppam d'une manière ou d'une autre waaw bu ko defee loolu mooy li ñuy sànni ci ay baat rekk